أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñuy dikkaat ak yéen rek di woy ak yéen ni ñu ko baaxoo àndi ak yéen ci ay bis bu jot di nafarante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi ñu toll ci téeréem bi nga xam ne moom la tudde Munawwirus Sudur ci suñu jotaayu xam-xam yi nga xam ne moom la ñuy ànd ak yéen ñu tolloon ci suñu bind bi mujj bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu la def jagleel ko li nga xam ne moo di aw làmmiñ ak li nga xam ne moom la ñu ci war a moytandiku ak li nga war a li nga xam ne moom la ñu war a baril di ko ci def bunt boobu moom la ñu àndoon ak yéen tey bunt bi nga xam ne moom la ñuy ànde ak yéen tey nag di ko continuer ak yéen ci téere boobu ba tey mooy bunt bi nga xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ko jagleel al farj mooy pay mu tudde ko faslun lii ab dog la fil farj ci pay pay nag buñ ko waxee mooy fi nga xam ne foofu la doomu aadama di jaxasoo moo xam góor moo xam jigéen jaxasoo gi nga xam ne mooy dox ci diggante doomu aadama ju góor ak ju jigéen fa nga xam ne foofu la ñuy jaxasoo foofe moo tudd pay sëriñ bi nag bunt bi ñaa cër boobu la ko jagleel muy pay muy wax ne la taqrabi zina bul jege njaaloo walal muxaddamaat du caagee na la nga xam ne moo jiitu njaaloo li wajhi baaxin ngir jëmmi yàlla mi aji des xuuruhu xuuram ya muazzamaatun aji màggalan aji kawe lañ sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bul jege li nga xam ne moo di njaaloo mukk bul jege njaaloo waaye la nga xam ne moo jiitu njaaloo sax nga xam ne nit ki ca lay jaar ba mën a egg ci njaaloo sëriñ bi radiyallahu anhu nee na loolee sax bul ko jege ndax njaaloo dafa doon loo xam ne gis nañ charia taral ci bu baax a baax a baax ba egg ci sax képp koo xam ne danga koo def te sangewu charia day sàkku ñu ray la kon loolu mooy wane ne njaaloo bàkkaar bu mag la boo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala araamal na ko waaye teg na ci ay daan yu diis a diis a diis nga xam ne egg na ci ba nga xam ne képp koo xam ne sax danga koo def te fekk bi nga koy def yow aji sangewu nga moo xam góor nga moo xam jigéen nga bu boobaa jaasi lislaam day daal ci sa kaw tey dañ laa war a rey moo tax sëriñ bi ne na ngeen ko moytandiku bu baax a baax a baax bu leen ko jege ndax suñu borom subhanahu wa taala sax bi muy wax ak ñun dane la taqrabu zina bu leen jege njaaloo kon waxut sax bu leen njaaloo waaye bu leen ko jege sax la wax kon loolu day wone ne jege ga lépp loo xam ne moo la ci mën a yóbbu la moo la mën a yóbbe ci njaaloo war nga ko moytandiku moo xam di bànneexu ci kàddu soxna la wala di jokkalante ay soxna kàddu ba mën caa jaare loole nga xam ne moo di njaaloo tukkee ca yooyu yëpp dafa doon yoo xam ne dañ ko war a moytandiku ndax mooy li nga xam ne mooy laltaayal li nga xam ne mooy njaaloo ndax saa boo xamee ne nit ki mi ngi jëfandikoo yu mel noonu ak yeneen yoo xam ne mi ngi koy séq ay so- ak ay soxna yoo xam ne ay jàmbur lañ ci ñoo moom te it séquñu dara bu boobaa loolee mën naa dem ba waral seen diggante li nga xam ne moo di njaaloo tukkee ca moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu nekkoon bu leen jege mukk njaalo waaye lépp loo xam ne moo ko jiitu sax moom njaaloo ci loo xam ne mën naa doon ay wax wala ay jëf yoo xam ne mën na koo indi moom njaaloo sëriñ bi nee na yooyu yëpp na ngeen ko moytandiku waaye na ngeen ko moytandiku te jëm ni yàlla rek tax yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo bind moo nu bindal ay xuurul ayin ba pare def ko ca ajjana daganal ñu ko te it képp koo xam ne bëgg nga ca yooye war ngaa mën a moytandiku teere suñu borom subhanahu wa taala muy njaaloo kon loolu tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne boo koy bàyyi moom njaaloo moomu na nga ko bàyyi te jëmmi yàlla rek tax waaye na nga ko bàyyi te jëmmi yàlla mi nga xam ne moom moo ko tere te araamal ko rek tax mu mel ni yi nga xam ne moom mooy moo mën a indi njaaloo muy muxaddamaat yi nga xam ne moo koy jiitu ba nan ko ca ba mën a yóbbe nit ki ci njaaloo sëriñ bi mi ngi ñu koy leeral moo tax mu ne wajtani bi na nga moytandiku alxultata jaxasooga ak jigéen ña wal mubasharata ak jonjooga ak jigéen ña li ajnabiyati ñeel jigéen joo xam ne ab jàmbur la ci yow maal munazarati ànd ak di xool jigéen ñooñee di xalaat ci ñoom waaye di di xalam jëm ci ñoom kon yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne mën naa laltaayal li nga xam ne mooy njaaloo moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne na ngeen ko moytandiku bu baax a baax na ngeen moytandiku di jaxasoo jigéen ñi nga xam ne ay jàmbur lañ ci yéen na ngeen moytandiku di jonjoo ak jigéen ñi nga xam ne ay jàmbur lañ ci yéen na ngeen moytandiku di xool xar xanami jigéen ñi nga xam ne ay jàmbur lañ ci yéen di ci ma bànneexu ci ñoom yooyu yépp na ngeen ko moytandiku moo tax mu ne innal ajaniba naka jigéeni jàmbur yooyee ladal awtaani fa réew yépp wa xayriha ak feneen fudut foofa xabailu saytaani ñooy fiiri saytaani ne na jigéeni jàmbur yooyee nga xam ne moom ngeen di xoolante wala ngeen di jaxasoo ak ñoom wala ngeen di jonjoo ak ñoom na ngeen xam ne jigéen ñooñu de ñooy ñi nga xam ne ñooy fiir yi nga xam ne ci la leen saytaani di fiire ñooy fiir yi nga xam ne ñoom la leen saytaane tegal mooy kàmb yi nga xam ne moom la leen saytaane gasal ngir tàbbal leen ca kon na ngeen moytandiku bu baax a baax di jaxasoo ak jigéen ñooñu waaye na ngeen moytandiku bu baax a baax di jonjoo ak jigéen ñooñu waaye na ngeen moytandiku bu baax a baax di jokkalante ak ñoom ay kàddu yoo xam ne mën na njaaloo mën na caa tukkee waaye na ngeen moytandiku it bu baax a baax di xelaat ci ñi nga xam ne ñooy seen jigéeni jàmbur yooyee ndax kat jigéen ñooñu yooyu yépp nga xam ne moom lañ tudd te nga man koo jëfandikoo ak ñoom saa boo ko jëfandikoo na nga leer ne saytaane mi ngi lay fiir di ko mi ngi lay fiir ba pare di ko jaare ci jigéeni jàmbur yooyee nga xam ne waroo séq ak ñoom yooyu yépp moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne ijaal na nga def tazawujan takk soxna makaana xorbin muy barabub jege li ajnabiyati ñeel jigéeni jàmbur tafus kon nga tuuf bil xorbi ci ak jege suñu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na nga def takk soxna day saa boo bëggee jege jigéen ñi nga xam ne ay jàmbur lañ ci yow na nga def takk soxna muy sa muy sa muy sa muy sa kaaraange sa diggante ak ñoom jigéen ñi nga xam ne ay jàmbur lañ ci ñoom ci yow daal na nga jël soxna nga doxale ko sa diggante ak ñoom maanaam su fekkee ne bëgg ngaa mucc ci ñoom nee na na nga takk soxna ndax su fekkee ne takk nga soxna rek loolee ab ab barrage lay doon ci yow sa diggante ak ñoom ba nga xam ne lenn loo xam ne di nga ko seq ak ñoom du mën a antu moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu digal ñu foofu ne na ngeen takk soxna saa boo xamee ne dem nga ba xam ne jigéen ñi nga xam ne ay jàmbur lañ ci yow mën nañ laa indil fitna waaye mën nañ laa indil saytaane waaye mën nañ laa indil li nga xam ne moo di ak mooy yàlla bu ngeen takkee soxna rek yooyu yépp da ngeen ca mucc ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñuy wax ne man istataa minkumul baa falyatazawwaj wa man lam yastati fa inna lahu wija képp koo xam ne maanaam mën naa takk soxna ci yéen na takk soxna képp koo xam ne mënu ko nag maanaam na jël koor def ko muy li nga xam ne mooy kaaraangeem gi nga xam ne ci lay aaroo ba loolee nga xam ne moom la ñuy aaye muy njaaloo wala ci mooy yàlla yi nga xam ne moo mën a dox diggante ak góor ak jigéen yooyu yëpp mu mën caa mucc kon takk soxna moo am la ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam digal saa boo xamee ne dem nga ba mënoo mucc ci li nga xam ne ñoo jigéen jàmbur ñi waaye su fekkee ne mënoo takk soxna itam la nga mën a def mooy woor doxale ko sa diggante ak ñoom ngir ne su fekkee ne da nga woor sa bànneex lu bëree bëree bëri mën na caa dem su ko defee ñoo ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi doo am seenu jot waaye doo am seen yitte kon ñaar yooyu ñaari baaraas la yoo xam ne képp koo xam ne man da nga koy jëfandikoo rek mën ngaa mucc ci fiir yooyu nga xam ne moom la jigéenu jàmbur yooyu lii la fiir moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne naa i na nga sori al ajaani ba jigéeni jàmbur yooyee rumi na nga sàkku atazawuja takk soxna aw wala li fi nekkay jàmmi lan na nga rafetal sabraka sa muñ tuk fa kon ñu fegal la al aywaja ak ndëngte sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na nga sori jigéeni jàmbur yooyee jigéeni jigéen ñooñee nga xam ne ay jàmbur lañ ci yow te amuñu ay borom kër na nga leen sori bu baax a baax a baax te nga sàkkoo takk soxna wala nga muñ nee na su fekkee ne mënoo takk soxna na nga na nga muñ nee na ñaar yooyu su fekkee ne jël nga ci benn nga def ko muy sa ngànnaay bu boobaa li nga xam ne moo di ak ndëng te dinañ la ko fegal waaye lépp loo xam ne moo la mën a dikkeel comme loo xam ne mën la yóbbu ci ak muy yàlla suñu borom subhanahu wa taala dina la ko fegal kon li nga xam ne moom nga mën a def rek mooy sori jàmm jigéeni jàmbur yooyee ndax suñu borom subhanahu wa taala moo la ko digal ndax dane la bu leen jege sax la la wax bul jege sax njaaloo kon su fekkee ne jigewoo jigéeni jàmbur yooyee sàkkoo it takk soxna wala bu fekkee ne mënoo takk soxna nga jiima muñ sa diggante ak jigéen ñooñee nee naa su yooyu de benn boo xam ne moom nga ci def rek loolu dana la fegal ak ndëngte bu baax baax waaye dana la fegal ak mooy yàlla goo xam ne mën nga cee tàbbi te dara du la ca tàbbal lu dul soxna yooyee nga xam ne ay fiir lan yoo xam ne seytaane daf koo teg ngir fiir ci ñi nga xam ne ñooy mbindeef yu yu góor yi kon pëy suñu borom subhanahu wa taala daf koo bind ba pare waaye bi mu ko bindee ba pare nag dafa am lu mu koy aayee mooy lan mooy njaaloo waaye it mu teg ci ay daan yu diis yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy def rek man nga cee amee merum suñu borom subhanahu wa taala bu fekkee ne tuuboo ko waaye képp koo xam ne na bëgg nga caa mucc li ñu sëriñ bi digal te yonente bi sallallahu alayhi wasallam digal ñu ko ñu def ko mooy lan mooy takk soxna su fekkee ne mënoo leen a muñ su fekkee ne mën nga leen a muñ muñ gu rafet nag man leen a sori bu boobaa man nga leen a sori man leen a muñ te bu boobaa takk soxna nga man nga ko bañ a def te jëfandikoo bee waaye ñaar yooyu moom benn muñu cee ñàkk nga jëfandikoo ko ngir mën a mucc ci li nga xam ne mooy fiir yi nga xam ne moom lañu jigéeni jàmbur yooyu di tegal di ñu ko fiiral ngir bëggal ñu cee bëgg ñu cee tàbbal kon ñu xam ne itam pëy dafa bokk ci li nga xam ne mooy yi mën a indil doomu aadama bànneex te doomu aadama lépp loo xam ne moo ko jox bànneex rek loolee daf cay daf cay daf cay sawar bu baax a baax waaye daf koy bàyyi xel bu baax a baax waaye nag na ca sàmmonte ak li nga xam ne mooy li ci suñu borom subhanahu wa taala digle waaye na cay bàyyi xel li nga xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa taala tere ndax su fekkee ne ñaar yooyu sàmmontewu ko ca dina ca tàbbi ci loo xam ne moom la suñu borom araamal wala mu. jëfe ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala digalu ko woon mu war ko caa jëfe kon pay ab cër la boo xam ne mi ngi ci doomu aadama waaye cër la bu garaaw boo xam ne doomu aadama bu ko yor rek war nga koo sàmm waaye war ngaa fexey fépp foo xam ne fa nga koy jëfandikoo rek muy doon foo xam ne fu dagan la waaye na doon foo xam ne fu la lew la ba doo ci mën a jële li nga xam ne mooy ñorum suñu borom subhanahu wa taala wala nga jële ci ak mooy yàlla wala nga jële ci li nga xam ne moo di ay bàkkaar yoo xam ne ëllëg yowmal xiyaam mën na laa jural pertaange kon moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne lépp loo xam ne mooy indi moo mën a indi li nga xam ne mooy njaaloo nit ki na ko moytandiku bu baax a baax ndax su fekkee ne moytandiku nga yooyu bu boobaa la nga xam ne mooy dëgg-dëggi njaaloo moom suñu borom subhanahu wa taala mën na la cee musal kon loolu la ñu andi woon tey ci buntu boobu di tuub bu baax a baax tey jégglu di wax ni in uridu illa al islah mastataatu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu